dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen raw ñu daal di dikk ak yéen ci xibaar yi mbokk yi internet info 221 dellu si rek ci góor jigéen bu ñu taaloon fale ca Kaolack Karim Xurum Xaq nag mer ba futtu la di def nag njabootu euh, ñoo ñi nga xamante ne sax dañ leen a teg loxo na rek ñoo taaloon góor jigéen bi fàttu bu ñu fale ca Kaolack euh, ba pare di ko taal nag Kaolack jot nañ njaboot yooyu sax dañoo mer ba futtu ji sàkku ñu libéré seen i doom ñu sukkandikoo ci laas nag ñoom jotoon nañu bénéficié wu ci ndimbalu activiste bi di Karim Abdou Karim Gueye ñu gën ko xam ci xurum xaq ak ñun fii ci Sénégal ak ñeneen ñun ay croyants lañ dañu gëm yàlla kon nag ndaw yi nga xamante ne dañoo lakk néewu góor jigéen boobee dafa nekk lu normal on dañu leen a war a nag accepter ndaxte nag ay nit lañ ñoo xamante ne xëy na euh, waroon nañ leen mën a nag suul waaye nag ci cimetière musulman yi ndax te nag boo seetloo ay jullit lañ loole nekk loo xamante ni nag ñu bari ci askan wi nanguwuñ ko te jegewuñ ko ñi nga xamante ni ñoo borom ñaari tur yi euh, ñu libéré ndaw yooyee nga xamante ne defuñu dara nag recommandation ñi nga xamante ne lislaam def na ko ñun nag dégg nañ politique bu autorité yi ni enquête dañ ko ubbi ngir nekk ñi arrestation yooyu jëm rek plaisiru ngir rek mën a jàppale lobbying homosexuel fii ci Sénégal Abdou Karim nag xurum xàq ne na loolee du fi am ndaw yooyu ñu daal di tiye te dañ ci kaso bi ndaxte dañ taaloon góor jigéen boobee dañoo def seen liggéey ndax dañoo fekki l'islam lu mu daal di wax image yooyu sax nekk loo xamante ne nag métti woon na ci réseaux sociaux yi ca 2023 foot bu bari nag néew bu ñu teg ci digg bi daal di ko taal nag loole mi ngi amoon ginnaaw bañ ko demee suli ba noppi ci euh, armel ya ginnaaw ba de kooke mu présenté wu ko jàpp ne daal homosexuel la woon ñu jàpp ne kenn di ko sul ci benn euh, cimetière u jullit moo tax rek nag euh, abit askana yeewu ca lew na ña seen meroon Bamba Fall nag jox na diggal neen nag commerçant yi ak marsant ambulant yi ñu jëlee leen ci trottoir yi xamal na leen nag du sama dogal waaye nag autorité yi ñoo ma dox bi leen dogal ngir ma xeex jële fi occupation anarchique bi maire bu commune bu Médina Bamba Fall jot na dajale ni ki ajuma ji marchand ambulant yi euh, ci woo euh, ak seen i délégué ngir mun a waxtaan ak ñoom rek ci naka la ñu def ngir jëlee leen ci tali bi ak yoon bi nit ñi daan ñu lal ndaxte loolu dogala bu duppee ci nguur gi te moom nee na faw mu jëfee ko laataa nag loolu di indi coow mu woo leen teer leen a averti ñu jël seeni i matuwaay bu ko defee nag coow bañ fee am te dina def kem kattanam ba set naka lay def ngir yóbbu leen ci beneen bërëb boo xamante ni dañ fa mën a toog nag daan seeni doole xibaar ba tey rek bokk na ci ci set setal bu ñu daal di tàmbali jëwriñ bu ñu dénk wàllum nag euh, ministre bu ñu dell wàllum set setal ak nu nu mel euh, jot nañ ko dalal di Moussa Balla Fofana sëñ Mountakha Bassirou Mbacké daal dina ko talal ñaareelu édition bu set setal national euh, bu ñu jagleel niki tey ci samedi bi juróom-benn fan ci weeru ci biir réew mi yëpp nag lañ ko fas yéene amaan jëwriñ bu ñu dénk wàllum urbanisme ak collectivité territoriale ak aménagement du territoire jot na dem niki démb ca Touba ba sëriñ Mountakha Bassirou ko dalal ànd ci kër sëñ Bass Abdou Khadir di porte-parole bi xalif général des Mourides nag ci teewaayu député Cheikh Thioro Mbacké jot na rafetlu nag bi la initiative di ñaax nag askan wa yeewoo ca Touba ñoom ñëpp ñu fas yéene wuyu si leen bésu tey ji nga xamante ne dafa bokk ci euh, mbébétu Bassirou Diomaye Faye di njiite réew mi euh, Moussa Bala Fofana nag moom it kontaan lool nag ci cadre de vie waaye bëgg na daal askan wi nekk ci dund bu sell bu set waaye tamit ñu seet ne lu wër ci grande mosquée bu Touba daal lu ñu a def nañ bu ñu jaamu yàlla te dafa war a nekk lu set Cheikh Abdou Latif Mbacké nekk benn ku important ci joxe ay matériel yoo xamante ne moom la ñuy jox ñi nga xamante ne rek ñooy fas yéene nag wàcc si mbedd mi ngir gën setal Touba opération de nettoiement bi nga xamante ne daal dañu ko amal ca Touba ñu waxtaanee nag euh, jëm ci leneen kii nga xamante ne mooy Serigne Mbacke Ndiaye moom nag mu ngi sàkku ci président Bassirou Diomaye Faye mu daal di euh, xaaj dissoudre assemblée nationale convergence libérale ak patriotique nag bu di Serigne Mbacke Ndiaye moo ko jiite mi sàkku nag ñu daal di tas nag assemblée nationale mu ngi koy laaj njiitu réew mi Bassirou ay Faye ci cadre loolee loolee sax nag ci septembre jotoon a déclaré moom mi li sax ci conférence bi mu doon amal ni ki démb polémique bi bari lool jëm ci déclaration de politique générale ci kanamu assemblée nationale loolee nga xam ne prétexte la ancien ministre ci Abdoulaye Wade ci membre coalition Benno Bokk Yaakaar mi ngi avertir nag lépp lu jëm ci tentative ngir récupération député yi wala sax nag adhéré ci beneen mouvement à présidentiel jamono jooju mbokk yi internet info 221 Ousmane Sonko nag tàmbali na ñaareelu journée li di set setal ca Saint-Louis la ko defee moom Elimaanu jëwriñ ñi mooy jiite nag set setal bi fa fële nag ca fa nga xamante ne moo di Saint-Louis bés la woon boo xamante ne Mansour Faye mu nekk maire bi mi ngi doon askan wi ñu dalal ko gàttandu ko gàttandu bu am solo ngir rek gën a amalaat nag cet-cetal fale nag ca Saint-Louis chef du gouvernement nag daal dina visiter Pikine lu toll ci juróom téeméer ci inspection ay ay bassin waaye tamit bassin de rétention naka noonee dem na ca ginnaaw raay wala sax jeexale ca Guet Ndar foofee ñetti ñetti ya nga xam ne moom la fa tàmm ngir rek ñu mun a defal fa activité yi leneen ci xibaar ci loo xamante moom la ñu àddu kii di Cheikh Thioro Mbacké bi jot na invité askan wi ak population bu Touba ñu jàppale nag askan wi ci defaraat dëkk bi seetal ko ci dogalu njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ñaareelu bëccëgu set setal suñu réew ñu amal ko niki tey jii ci biir réew mi ca Touba nag jëwriñ bi ñu dénk wàllum urbanisme nga fa woon ànd ceeg Cheikh Thioro Balla ah, ba Doli moom nag mu ngi ñaax askan wi ñoom ñu daal di si jàpp rek ndax seetal réewum Sénégal leneen ci ay xibaar daal dina bokk rek nag ci loo xamante ni ah, moo upp bopp nit ñi jëm rek nag ci kees caisse de dépôt de sécurité sociale lu toll ci ñaari milliards jot milliards jot nañ ko fa détourné jot nañ ci daal di teg loxo ñaari cadre de libération moo fa sa lii de xibaar ci carnage financier ci kóor ci bopp nag caisse de dépôt de société caisse de sécurité sociale benn plainte bu ñu tegoon euh, nag ci ndoddu section de recherche nag ci détournement bu toll ci benn milliard ak lu ñu toppal dakanu ne stade lii di euh, enquête bi nag ci jot nañu xamal ne ñaari cadre nag ñu doon liggéey foofee daal dinañ leen teg loxo agence la bu nekk ca plateau euh, bu huit port ak leneen buñ sukkandikoo ci journal yi ñaari yooyu sax nag jàpp nañu daal ñaari gendarme yi taxawoon nañ seen i kanam ngir rek ñu mën a daal di leeral mu mel ni rek luñ leen di tuumal nag dañ koo daal di nangu. nangoog ñu waxtaanee fonds ko ministre yu bëri ah, jamono ji fi mbas mi amee ngir jàppale ko ne dañ koo daal di lekk Mansour dina yóbbu Aminata Touré ci kanamu àttekat yi ginnaaw bañ koy toppee ci wàllum diffamation ci wàllum force force Covid 19 ndaxte jàpp na daal ne euh, moom Mansour Faye dafa lekk xaalis boobee ñu dañoo kenn ku ne rek war na solde comptam euh, ci kanamu tribunal bi niki ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juillet bu ñu dëgmal la ñu fas yéene janoog àttekat yi xibaar yi nag Mimi Touré moo fësaloon ci page Facebook buñ sukkandikoo ci suñu naataango ñi di waa nag ab objet boo xamante ni nit ñi moom la ñuy kawti kawti waral nag kii di Mansour Faye ngir daal di raxas deram bam set wicc nag nee na faw rek mu yóbbu Aminata Touré ci kanamu attikat yi ndaxte daf koy tuumal ci xaalis bu takk goo xamante ne ma nga toll ci 1000 milliards ci fond force Covid 19 loolee gisuñ ci dara moom mi bañ ko installé euh, ñu bëri ci ay plainte yoo xamante ni bari na ci Sénégal yi rawatina rek xaalis boobee euh, constat bi nag be famille bu présidente de la République ñoom daan dañoo daw ak lépp la leen joxoon waral yëkkati woon ay kàddu yooyu fukki diiru fukki at nag ñu réussir di teg di teggi waaye tamit di ko alalu askan wi bokk na ci rek ne kii di Adama fay di rakk ci présidente laay Marème Faye fay fale ca Grand Yoff moom it yóbbu woon nañ ko ci kanamu attikat yi loolee yëpp nag nekk loo xamante ni eh, faw rek nit ñi jóg ci Aminata Touré nag loolee mu wax waral Malick Mansour Faye nag nee na eh, lu mu ci wax dara amut dina ko yóbbu ci anamu kat atikat yi plainte la teg ci ndoddam ngir xamal ko rek ne lu muy wax nag da leen di tuumal kon nag ñaar fukki fan ak juróom-ñaar eh, ci weeru juillet ci tribunal ci la ñu fas yéene rek daal di nag janook ñi nga xam ne ñooy àttikat